salaamaaleykum ñu ngi laa nuyu bu baax a baax a baax di la wane welcome back si suñu daily news yi am tey di Tuesday 26 of September 2023 ah, si headline bi gis nañ ne National Assembly member for ñoomi moom moo wax ne ku du nangu yàlla ah, nguuri Adama Barrow lu munti def ah, doo ko nangu <coughs> beneen headline bi tamit gis nañ ne ñu ne moto rey na ñaari nit ñoo xam ne the same place sukuta jaban johnson bobu nonu uh, benen hel lami taɓe jisnen kuño manka jan manka jan mo wahne uh, den ko dite noon uh, ta nangoñ mo waha ken ta johoñ ko lekat tamin fum ne kon nonu benen hel lami tamin jisnen ne uh, kuño wah nogoy jay ñune nogoy jay mommo uyu suñ borom Uh, benen hel lami tamin jisnen kuño yankuba dabo yankuba dabo kisambi Eh, ñu ne moom moo continué woon yii ñooy headlines yi waaye balaa ñoo dugal si news bi rek di la wax ne please ngeen subscribe si suma youtube channel bi Babou Kuyaate eh, ngeen follow ma tiktok eh, youtube bi tamit mun ngeen a si tiktok profile bi fu mu nekk noonu la si kona bi di ngeen jël youtube sign bi mu ngi black nga press ko rek nga dugal si biir nga subscribe ñu ngi leen a ñaan loolu baax a baax a baax ñu dugal si news bi Eh, eh, si news bi eh, gis nañ ne Gambia Centre for Victims of Human Rights Violation ñoom ñoo wax ne Euh, ñu ne lii nekk na naxar bu rëy ak tiis euh, di wax ne euh, ku ñoo wax Miss Nogoy Njie Nogoy Njie mu nekk Mandarin West Coast Region ñu ne Nogoy Njie nag dafa yàgg feebar feebar bi nag naka la ko amee moo nekk ñu ne jafe-jafe yu gaay amoon si NIA bi maanaam dóor yeeg yeneen yuñ ko defoon loolu moo taxoon feebar euh, ñu ñoo soo leen bàyyee xel Nogoy Njaay moom moo nekk ñoo xam ne euh, moo lee solo sanden euh, ñoom dañ leen arrestoon ci April 14 2016 <clears throat> depuis boobu nag Nogoy Njaay buñ ko yóbbee foofu noonu nag ñoom luñ doon xeex moo nekk ñu ne justice bi ak ñoom luñ bugga rek nguur gi def moo nekk teg affaire yëpp si yoon affaire yi euh, election everything ñu teg ko si yoon ñoom seen xeex bi yëpp loolu la woon ak freedom yi ak démocratie lii la gaay doon xeex according to nit yi ñu ne Nagoy Njaay nekk na koo xam ne moom dafa gëmoon euh, loo xam ne mooy freedom te dafa gëm loo xam ne Gambia rek la gëmoon euh, lii nekk na loo xam ne moom si loolu la nekkoon rek xeex moom Nagoy Njaay nag moo solo sànleen bu ñu leen jàppee noonu ñoom ak ñeneen ñi moom ñu ne NIA luñ ko def noonu loolu moo taxoon depuis bu mu génnee moom Nogoy Njaay ah, depuis jamono boobu noonu moom munta njëriñ boppam waat mu ngi feebar rek ah, feebar bi nag ah, noonu la demee ba wuyu suñu borom waaye ñu ne Nogoy Njaay nag moom moo nekkoon vice chairman UDP <coughs> Women's Wing bi ñu ne Nogoy moom depuis eh, palaas boobu bu mu ko amee ba bu mu uyoo boromam nii moom loolu la am eh, victim for human right eh, violation ñoom ñoo announce lii waaye gis nañ ne UDP tamit dis jëf nañ di seen thing di announce seen eh, Nogoy Njie ñu ngi ko wax ne na ko yàlla yërëm te yéexee ñu beneen news bi gis nañ ne uppa ñëw mi seen National Assembly member bi ku ñoo Omar Dabo Omar Dabo nag moom moo jóg si parlement bi foofu noonu mu mu mu dal di jël cadeau di attaque waaw moom lan la wax na mu ne mu ne koo xam ne yow ah, nanguloo dogal yàlla yow doo mun eh, nguuri Adama Barrow lu mu munte def yow doo ko gis si lu baax mu ne lii nekk na loo xam ne ah, ñu baree baree bari ñoo xam ne ñu ngi criticiser nguuri Adama Barrow parce que nanguwuñ lu yàlla dogal moom Omar Dabo nag ñu ne soo leen bàyyee xel moom bokkoon na si ñoo xam ne ñoom ñoo ah, ñoom la UDP daaxoon si seen parti bi moom Omar Dabo depuis boobu nag si la dem si Adama Barrow Euh, NPP mu join foofu noonu moom wax nañ ne tamit euh, NPP ñoo leen sponsor euh, pour ñu taxawaat si National Assembly moom Omar Dabo nag wax na wax yu bare bare bare bare yoo xam ne rek mu koo sànni ñoo xam ne mu ne bëgguñ UDP maanaam ngeen baal ma NPP ak Adama Barrow Omar Dabo nag National Assembly member bi nii moom moo wax loolu Euh, ñu ne beneen musiba amati na Faidherbe fu ñoo wax Sukuta Jaabang road bi euh, Sukuta Jaabang road bi ñu ne am na accident bu fa xew euh, jaaykat yoo xam ne ku ñoo ooyee Salima Jallow ak Wuri Aniya ñu ñii nag euh, ñu ne euh, euh, ñoom wax faaraato lañ farato lañ jógee ñii la moto bi tampon fan la leen tampon mu nekk Sukuta Jaabang highway bi foofu noonu Sukuta Jaabang junction boobu noonu waaye according to report lan lañ wax ñu ne moto bi nag driver bi fu mu jublu woon moo nekk yooni airport bi di dem waaye lan lañ wax ñu ne moto bi ne ah, driver bi moto bi ah, comme dem na bi moto bi mënu ko contrôlati maanaam moom mu ngi daw daw yu métti waaye ah, police seen eh, eh, spokesperson bi di Kedek ASP Modou Moussa Cissé moo wax na ni mu ne driver bi ne waa Brufut la mu ne driver bi folla duure ni mu ne jos niya fo affaire bi amee mu ne ka fo ñu reye ñaari police yi foofu la accident bi xew mu ne e, ku ñoo wax ne salima ak wuri ñoom waa faaraatu lañ te ñoom ñëpp benn famille lañ jógee maanaam ñu ne driver bi nag am na si problème si tànkaam bi e, te jamono bu ñu toll ni ñu ngi ko admit sukuta seen health center bi foo xam ne police yi ñoo ko nekk di garde beneen record bi gis nañ ñu ne ku ñu ooyee Manka Jang Manka Jang moom ba léegi ah everyday news dafa génn si affaire yi Manka ñu ne Manka Jang nag ah, moom jamono bu mu toll nii moom moo gën a wax lan la wax na mu ne ñu ne boo leen bàyyi xel Manka Jang moom ah, ah, moomu TikTok la waaye journaliste tamit moom Manka Jang bu mu demee jullu ba ñëw nag si lañ ko dal di oo moom Manka Jang nag ñu ne TikTok boo xam ne la 70 000 nit ñoo ko nekk di follow waaye Manka Jang bu mu jógee jullu bu mu ñëwee. ak si lañ ko téye moom Mankaja moom moo wax mu ne buñ ko téyee foofu noonu mu ne ah, dafa toog ah, ñu ne ne mu ñëw uyu buñ demee Banjul dem police eh, Fajikunda bi moom lan lañ ko wax mu ngi nekkoon Thursday moom dafa ñëw ah, waaye waxuñ ko dara si lañ ko wax ñu ne ne mu dem dañ ko yóbbu anti ko xaar mu ne bu mu eggee eh, anti crime tamit bu mu eggee foofu noonu mu la dégg beneen police bi di wax ne képp leen ko eh, foo xam xam ne te bu kenn waxaa moom so mu ne moom euh, laajte wuñ ko dara waxuñ ko dara foofu lañ ko téye te nanguñ kenn gis ko kenn kenn tamit xamul fon la nekka manka janna mu ne mu ngi foofu noonu joxuñ ko ndéew joxuñ ko añ joxuñ ko reel moom noonu la nekkee foofu noonu waaye journaliste yi buñ ko laajtee ñu ne ko ne euh, ndax yow euh, laaj laajte wuñ la loo demoon uti jëloon mu ne depuis bu mu fa demee kenn laajtewul ko dara kenn waxul ko dara moom noonu la nekkee laajtewaat nañ ko tamit nda xam nga lu tañu tiye la mu ne xamu dara lu tañu tiye ko foofu noonu moom moom ka jàngu dal dal ne wax ne mu ne saturde bi si lañ ko génnee noonu nag ñu ne ko ne nga prépare nga ut sa nga console sa loya bi parce que danga war a dem coote te na nga joxe statement mu ne si la wax gars ne moom du joxe benn statement moom nag du joxe be du binda benn statement waaye gars yi suñ buggee ñu tajee si coote bi waaye moom du joxe benn statement moom manka janna wax na ne mu ne si la gars di jël kaytam yi maanaam document am yëpp ñu tiye ko foofu noonu ñu ne mu dem report on monde moo neka dimba manka ja nag lii la wa beneen news bi gis nañ ne yankuba daabo moom moo dellu war si coté kay bi yankuba daabo nag moom si kadom mu ne bu mu fee si jooj bi nag jooj bi bugg a continue case bi moom lan la wa jooj bi mu ne ko ne ñoom def nañ seen appel appel bi moo neka ne na jooj bi mu bàyyi affaire yi case bi nii mbaa jooj bi mu eh, teg case boobu yëpp si suuf moom Yankuba Dabo nag ah, bu nga ko waxee last time jooj bi jooj ah, bi dal di bañ waaye eh, bu ñu bindee application bi jooj ah, bi ke démb nag mu accept ko mu ne fu mu nekk nii case boobu appeal boobu noonu ñu ngi ko yóbbu high court pour ñu déglu ko foofu noonu moom case bi nii fu mu nekk nii stoppangum nañ ko ba time bi ko eh, high court bi ñu decide Euh, moom ndax case bi dañ koo bàyyi euh, ndax dañ ko ndax jooj bi moo ko continuer ndax du ko continuer moom Yankuba Dabo nag euh, dal dina wax ni mu ne lii yëpp moom xam na lu si nekk mu ne lii yëpp affaire yi politique la mu ne jamono buñ toll nii moom mu ngi nii Brikama Area Council ñoom fu mu nekk nii sax ñu ngi ñàkk xaalis bu baree baree bari parce que bés bu ñoo def code bi rek nga xam ne seen gars yi duñ liggéey mu ne lii nekk na loo xam ne ñu dee collecte xaalis sax ñooñu duñ dee dem liggéey parce que dañ dee ñëw atteindre code bi mu ne lii nekk na li xam ne ne dafa dafa méttiwu torop parce que ñoom ñu ngi ñàkk xaalis bu baree bëri te am na liggéey bu bëree bëri bëri lu ñu mën a def bi Gambian Talents Council moom Yankuba Dabo nag ah, journaliste bi dal di ko laajte mu ne ko ne ah, kii nag ah, lan lan nga wax si affaire yi bu ñu reyee ñaari police yooyu noonu ba ki la génn mu ngi wan ni mu ne kooku moom du wax si moom parce que kooku fenkat la maanaam Sankare fenkat la mu ne waaye yàlla ne ko dineloo moom fen na ba fennam bi ñëw jàpp moom si boppam mu ne moom du jël benn action because kooku xam nañ ne moom la waaye xam nañ ne moom la wax waaye moom waxu dafa wax ne